asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi eh, seen bokk taalibe Fallou Galass Syll moo fas yéene àndak ak yéen ci jàngat wala nafar liggéey bu réy bi nga xam ne Cheikh Mahamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacké liggéey na ko ci wàllu communication bu jëm ci màggali Touba yi nga xam ne cérémonie officielle yi ci am moom moo fa yor kàddu xalif général des mourides mu tàmbalee ko nag ci màggalu 2009 euh, ba ci 2023 bi nga xam ne moom lañ génn di ñaan suñ boroom mu gërëm liggéey bi lépp te mayaat ñu ñu fekkewaat at yu gën a bari yooyu Cheikh Mamadou Bassir ñu tànn ko ci mu yore kàddu xalif général des mourides ci xilaaf ak alxaaji Mouhamadou Lamine Baara Mbacké ci atum 2009 bi di màggal gi mu njëkk a di ci def ay discours yu am solo ak ay réalisation te danañ ñëw ci yooyu yëpp waaye li ñuy njëkk ak yéen ci vidéo yi mooy jàngat discours yi discours yu njëkk ya discours yi ci dëkk digg bi ak discours yi nga xam ne ci lañ toll fii ñu toll lépp jëm ci mbirum Serigne Touba ak Xaadim Rasoul kon dañuy ñëw ci màggal gi nga xam ne Alxaaji Mouhamadou Lamine Baara moo toog di xalif général des mourides Serigne toog di jëwriñam ministre Madické Niang toog di ndawul njiitul réew ma di président Abdoulaye Wade ñu déglu discours bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Bachir mu Cheikh Abdoul Khadir def andil ñu ci it njàngaleem Serigne Touba ak i ndénkaaneem ñu maa déglu discours boobu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. yéen bokki jullit yi yéen bokki taalibe murid yëpp maa ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci turu sunu kilifa Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne bi di sunu njiit ci liggéey bi. di leen jottali ci turam ngërëmul sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacke xalifatu général di murit akuk cantam ci seen taxawaay bu rafet ak seen yitte ju mat ci bisu sëriñ Touba bi nga xam ne sëriñ Touba moo digle woon ñu santale ko ci yàlla ndax li ma bëggoon lépp ci saw bis bis bii la ko muy tukkee bu tedd boobu doon ndax mooy bis bi nga xam ne ci la fi jóge woon jëm ca tukkeem bu tedd boobee nga xam ne zahir sa daa mel ne am natt la waaye baatin ba nag lépp yiw la moo tax sëriñ Tuuba ba mu jugee ci tukki ba ba ñibbisi ba àgg kër ba àgg sann kër sëriñ am na mel mbokkum taalibi mu ko laaj ba xam mbàkke mu bi def sëriñ bi ko bu dara du ko jar sëriñ sëriñ Tuuba nag waxaloon na boppam ne bi may dem ci géej gi damaa meloon ne ku nuyu ko amee xet ku nuyu ko amee xet bu laaj ko mu bàyyi xet gi ci sama loxo nee na ku ma gis ku ne nag ne ma faaw nga may ma laaj ko te nee na boobu waxuma laa di am laaj ko nañ waaye xawma fa laaj ko nañ nekk nee man nag ko man nag man kon nag lii nga war ci moom mooy fexe ba am laaj ko nañ man waaye boobu liimaan ak lislaam ak lixsaan ñeewuma ci nabiyul mursal ñeewuma ci malakul muxarab Sëriñ Tuubaa bi dem ci géej gi. lenn ni boppam taxu ko woon a dem ndax bi muy négocier yoonu géej gi ci daarul xudus bi muy def xalwatu bi fekk na mu am tuuba am daaru salaam ak li ñu làmboo ci mbot am taalibe yu bari yooyu ku mu ci gërëm mbooloo mu bari topp la kon kenn mënu ko waxal lu mu soxlaal boppam lu muy wuti ci géej gi lu muy lu may liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li tax mu nekk xadim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo may sëriñ Touba jëfam weesu jëmmam moo tax Touba bi tey jëmm ji te mën sonal jëf ji moo tax boo gisul jëmu ji itam jëf jaa jëf jaa ngi wéy loolu moo tax mu ne man duma faatu ndax sama jëf du dog te sama wërsëg du taxaw te du jeex yuallimu alxayu lasi laysa yamut alxalqa anni abadan lastu amut bis bi nag Serigne Touba li ma bëggoon lépp ci la ko yàlla defal li ko ci yàlla defal nag fiir firndele si bokk na ci la amee gaaraatu doon jawru ñi yonente bi sallallahu alayhi muy ni wax ne allamani rahmaanu fi safina bi anna nii xadimu zil madina jërëjëf mbokk yi ñoo jot a dégg discours boobu weesu di ci xilaaf ak alhaji Mouhamadou Lamine Baara mu ñëw rek ci ñaareelu discours am ci xalifa ak Cheikh Mouhamadou Baara ñu jéglu ci mbokk yi nuyoo bi njalbeenu discours bi xam nga vidéo yu yàgg yi waaye dañuy ñëw rek ci ndenkaan yi ak tomb yi nga xam ne génne ne ko ci discours bi wax ne njàngaleem Cheikhul Khadim la ak loole fi jamono toll ñu xool ko ak fam ko doon waxee ci atum 2010 wala ci 2009 ndax am na ci màggal yu duggante su ko defee rek ñu teewluwaat Cheikh Mouhamadul Bachir ci façon bi muy waxee ak tolluwaay bi nga xamante ni bii. ci la réew mi toll ci jamono jooju. Serigne tuubaa nag koo ko fi nekkal kon nag yàlla suñu boom dalay rus kon nag bala maa jeexal ci sant yi nga xam ne moom laa war a jëme ci ministère bi rek ñu fàttali juróom juróomi dénkaani yoo xam ne Serigne Touba daan ko wax yoo xam ne Serigne bi daa waxoon danañ ko jot li teel bii danaa wax ne bàyyi wax lu amut moo gën jàng alxuraan laa biire nit ñi moo gën jihaat bañ a fàttalee moo gën naafile guddi daana wax lu la mën a yóbbu ci yàlla lu ne buntu la lu la mënta yóbbu ci yàlla lu ne nag kiiraay la daana wax ne laab ñaari xet la laab gi tax a mën a laal alquran ak laab gi tax a mën a dégg alquran daana wax ne ku bëgg a topp ndigali yàlla yépp na jël lenn ci ndigali yàlla yi sennal ko te dëggal ca danañ ko fekk si ku bëgg a bàyyi tere yépp na jël genn tere bàyyi ko te dëggu ca kon tere yi ca des yépp danañu dem bokk na ci yërmandeem ju yaatu nag ak ëmbal gu mu ëmbal ñëpp aw yow la mu waxoon ne ku gis mbind mi na xam ne ku ko ki ko bind baal na ku ko tooñ te du ja du ñaan yàlla ab tooñkat te ñun mi ngi jéggalu yàlla képp ku aju ci moom te gëm yàlla tey li mu bëggee ñi gëm yàlla te aju ci moom moom lay bëggee ñi gëm yàlla te ajuwuñ ci moom. daana wax ne bu leen jël seen jëf yu baax di ko jox gaañ yu baax ñi te bu leen gàddul kenn ci way ñaawali jëfam yu bon loolu mooy bul ayibal ku baax te bul tooñ bon. ndax soo ay ayibalee ku baax ñu jël sa lu baax faye ko soo tooñee ku bon ñu jël ay ñaawteefam jóor la daana wax ne lépp lu ngeen bëgg sàkku leen ko ci topp yàlla lépp lu ngeen ragal mooy tooñ ko ci bàyyi mooy ku daw ci jëm ci ngërëmul yàlla li nga bëgg lépp daw jëm si jëw sëriñ bi nee na mi ngi fàttali bokk taalibe yi fii jamono toll ci ay xat-xat te daj àdduna bépp ba tax ñu koy tuddee crise mondiale li ci war bépp jullit mu jële ci ak waar te xam ne waxi sunu borom du tuxu te noonu na bu waa dëkk yi gëmoon te ragal yàlla na mu ware ma ubbil leen bunti barke muy xéewal di sottiku jóge ci kaw ak di ball jóge ci suuf waaye dañoo weddi ma jàpp leen seen jëf téye samay xéewal ci loolu nee na mi ngi digal ñëpp di leen soññ ñu gën a fóot xol yi te sellal jëf yi te moytu tooñante ci sunu biir ak tooñ sunu borom te sax ci tuub mi nga xam ne saabu la buy setal ci julli ci bépp taq-taq waaye goj la buy wob bépp yiw te bu kenn naa naagu yërmaane yàlla ndax laa taqnatu bi rahmatillahi lu xat-xat yi metti métti na ngeen ànd ak seen gëm ak seen sago te xam ne jafe-jafe jafe bu ne ak jàpp na la cee tegee ndax innama al usri yusran bu mu taxee kenn bàyyi lu baax loo daa def waaye jéemal ba sës la jees nga yéene ko sunu borom dina ko àggale ci baaxam kon nag nanu xam ne réew mi nun ñëpp noo ko bokk boo defaroo noo koy jariñoo bu yàqoo it noo ciy kon nag na fi ñëpp di yéene lu baax te di fi wax lu rafet te fiy jëf lu jub muy dénk ñëpp ñi nga xam ne dañuy wax ñu leen di déglu ñuy fàttaliku ne al fitnatu naimatun laana allahu man ayqaza te nag wax ci nit loo xam ne day yëkkati dëndam di tàng xolam ba man koo def loolu lu mu bëggul te naru ko woon loolu ci yee fitna la bokk te fitna joo xam ne bu jigee bu jigee yow mi ko yëkkati xam nga ko doo ci mucc jëru la tànn kon nag nañuy wax nit ñi luy tax seen jikko di defaru defaru ak lu leen di soññ ci liggéey ngir jariñ xeet bi bàyyi yàqante ay dara ak tuumaalante yi te def ndigalu yàlla mu wax ne waxoo wax leen nit ñi lu rafet waxoo loolu li naas xusna te xam ne atte nit ñi newut ci loxo jaam yi kon ku leen mënta labiré nga bàyyi leen ak seen melo te xam ne bisa nga ca kanam kenn ku ne da nga teew say jëf teew ñu jox la ko ci téere ne la jàngal boo noppee da nga mën a atte saw yoon wi nag dafa mel ne daa ubbi coopérative bu jëm ci yàlla ci ngay jële aw jiw bàyyi ci tool bi yaa ñëpp soog a gor dem dem ci sëñ ba mu fay ku ne sa kem ku sa jëm xeeti fayoor yëpp nag ci loxoom la ne mallakanil maliku wal maliku wal maliku lasi lahu tamliku ajran kabiran wa sawaban wa jasa wal waxdu lii fi ramadana la jasa fayoor yëpp nag li leen wuutale mooy wuutale jëf yi ak yéene yi ak posté yi kon nag yoon wi mooy toolu sëriñ bi ci lees ko mën a liggéeyal te mooy ku ne la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom ni ko sëriñ bi digloo di diglee waxtu wane ci jumaa ji te ku ci jiite sa ku ci ku ci jiite sa morom nga lig ko te gën a farlu ci daayira Seexul Xadim ni te xam ne mooy toolub àllarba yi te ñu bàyyi xel ci ñi nga xam ne da yob Sëriñ Tuubaa da leen a jaaxal te amuñu lu ñu sikkal ci jëmmam wala jëfam wala ñoo ñooñu lenn ci jëfi taalibe yi la ñuy fab di ko gàll ci kaw koddaayal yoon yi te loolu ak ñàkk xam la moo daloon tubaab yi seen digg sëriñ bi te ñoom seen jëm bopp wax nañ ni rëccu nañ ko loolu moo di suñu borom bi mu bindee ñëpp bu ko neexoon jubal ñëpp ñëpp gëm ko mooy li mu wax ne walaw shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an mat moo tax nag matari doomu aadama ci lenn ci nit ñi bu ñu ko jël gàll ko ci kaw yoonu murit comme ni ko occidentaux yi defe ci lislaam kon nag loolu mooy yoon yi bu ñu ko jaawale ginnaaw bu loolu jàllee nag sëriñ bi nee na mi ngi fàttali yi muy tere ci dëkk bi te muy loo xam ne sunu borom moo ko tere jaarale ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa di ki yeesal ko mi ngi koy fedd di ko fàttali ñëpp tey xam ne lépp loo xam ne kilifa mi daanee ko bañ ci dëkk bi ñu ngi koy fedd di ko yeesal ba tey Touba nag mooy xetaru Sénégal Marista wax ne fi la réew mépp di nooyee ndax fi la bëggug lépp ci réew mi jëm fi la ñu fi ëpp dëkk itam Touba nag dafa tabaxu ci kaw système boo xam ne Serigne Touba moo ko jëkk am ndax économie am ak politique moo ko jëkk am ndax économie ak politikam am day bàyyi ko ci bëggu taalibe bi nit ki taalibe bi kenn du ko force ci dara yàlla ji mu ko wóor na mi fi mu yëg ko moo ko koy jaral ba tax mooy dikkal boppam te kenn du ko laaj kenn du ko woo muy joxe alalam te kenn du ko laaj te bu jure bu juree dugal ci loolu nit nag bu fekkee daanee ci biir ba màggat ci di ca xiir njabootam da caa gis njariñ les chaudons mën a fi am kon nag alhamdulilah rabbil alamin. jëf mbokk mi ñuy topp jërëjëf itam mbokk yi nga xamante ni bii yéen ngi bàyyi xel eh, ginnaaw bu sun borom dogalee Cheikh Mahamadul Bachir ànd ak Cheikh Mahamadul Amin Baara ci at yu néew yooyu sun borom tànn alaaji Mahamadul Amin Baara mu dem dëkkale ji ak boromam subhanahu wa ta'ala ñu discours bi nga xam ne. moom la sëriñ Touba Cheikh Sidiyal Muxtaar njëkk a toog di xalif zaal de murit fam kàddoom yee salaat ko ci Cheikh Mahamadul Bachir mu ànd ak Cheikh Mahamadul Muntaxa ñuy xool sëriñ Bachiru cër bi mu joxoon mag ñi cër bi mu jox Cheikh Mahamadul Muntaxa ci jamono jooju nga xam ne ñoom ñaar dañoo ànd am kilifa dina ci agronam waaye moom sëñ Muntaxa di magam andit ndenkaane yi Serigne Touba yi nga xamante ne bii mi ngi koy wax ci discours yi nga xamante ne bii mi ngi koy jàllale muy lu am solo waaye rek ngir nafaraat rek yi wees woon ndax ñu mu man ñoo soññ ci yi ñu dëgmal moo tax ñu fas yéene ànd ak yéen ci discours yi incha allahu rabbi danañ leen ko toppal ci lépp mu jëm ci ndenkaane yi mu doon wax mu jëm ci Serigne Touba leen ci mën a jariñoo ba agsi ci at yi ñu nekk ñu maase déglu. ñetteelu discours bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kilifa yi fi teewal këri diine yi ak yéen ñi fi teewal kilifa yi réew mi ambassadeur yi fi teewal seen réew ak yéen mboolem gan yu tedd yépp maa ngi leen di nuyu ci turu Serigne Touba ak Cheikh Sidi El Mokhtar Mbacké alxalifatul am li tariqatul muridiya ci ndigalu sëriñ Muntaxa mbakke mi nga xam ne mooy jëwriñam nga xam ne wax na li nga xam ne waroon nañ ko wax lépp dañ ci saraa rek leeral ko ci ndigalu sëriñ bi waaye moom mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ bi bu xasee ba wax rek képp kuy sëriñ sëtub sëriñ Tuubaa wala képp kuy mbokkum sëriñ Tuubaa wala ngay seexub sëriñ Tuubaa wala ngay taalib sëriñ Tuubaa tàbbi nga ci biir kàddu yooyu ndax kàddu yi soññee na bu baax ndax toogaayam ak jëmmam rek doy na sëkk doy na sëkk ab soññee ndax fi mu teg sëriñ bi rek loolu war naa tax ñun ñépp ñu gën a farlu gën a góor bu baax kon sëriñ bi nag waxoon na ne bala ñoo tàmbali ci kàddu yi ñu fàttaliku magam ju baax ja ak cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbakke cheikh Sidel Moxtar ci làmmiñam laa koy waxe ndax moom sa ni ma ko war a waxee ma jaare ko ci ni ma ko war ni ma ko war a ni bëggee ma waxe ko ni ma wax ma ne naa ko leerale noonu saraa ko waaye lii ma wax lépp kàddoom la yoo xam ne ci ndigalam laa koy waxe te ci làmmiñam yi laa koy waxe nee na toxoon taxoon Serigne Touba wooteem bi mu tegoon ko ci kaw bennoo ak nangu kilifteef ak responsabilité nit ñi ak njiitu gu rafet te ku ne xam ne moom mii loolu moo di doxinam nee na mu leen di fàttali ne bennoo gi yàlla suñu borom moo ko jëkk santaane wax ne wenn xeet ngeen may seen borom inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun dellu waxit ne yéen way gëm yépp ay mbokk yenn na ngeen def ni ay bokk ware def ci ak yéwénoo innamal mu'minuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko leeral ko wax ne jullit ak ak i mbokkam ñi ngi mel na ay biir ci biiru tabax kenn ku ne xam ne sa a tax nga ne fa al muminu lil mumini baax bunyaani yashudu baax baada lool lii la Sëriñ Tuubaa jëmmaloon ci watem bi moo tax ñi ko woysi woon boole woon seen bopp jaxasoo jàppante fàtte mboolem li leen wërtal woon ci ay cosaan ak i baax walla xeet ak i waaso ku ku ñu dajal ku ne it di xool ci yow leneen sëriñ bi digaloon te mooy waraay fii kulli xalqin xaqa man xalqa loolu moo leen jural ku leen mas a gis ku ne ñeme leen ku leen meen ku ne jax ku leen miin bëgg leen ku jaxasoo ñoom dootoo leen man a bàyyi. jërëjëf mbokk yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu ànd bi ngeen àndak ak ñun di ñaanalaat sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi gën a yàgg gën a wér ñaanal sëriñ Basiiru mu sëriñ Abdul Xaadir mi yore kàddu gi yàlla yàlla gën sàmmal aw làmmiñam gën a leeral ab dënnam gën ko taxaw ba lépp luy yéene mag ñi suñ borom dëppale ko ak man-manam seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll moo àndoon ak yéen baaba euh, Babacar jaañ moo nekk ci wàllu machine bi ñu leen di sant di leen gërëm di leen joxaat rendez-vous ci ñeenteelu épisode bi mu jëm ci discours yi nga xam ne discours yi màggali tubaala su ko defee bii di ñëw danañ ànd ak yéen ci discours 2011 incha allahu rabbi ak 2012 ba 2013. ñu ngi leen di sant leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.